mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen wax yéen ñëpp déwénati suñu boroom moo dogal jamono bii ñu nekk ak xew-xew yi fi am dëppoo ak tàmbalib campagne électorale ñu war a jëm ci ay joŋante yu am solo ci Sénégal gii nu bokk mu mel ne su fekkee bis boo xam ne ñi ëpp dañuy balonte ak dafa doon bis bi ñuy sóobu ci jongante yu am solo yi dafa mel ne li muy gën a tekki ci ñun ñëpp mooy kenn ku nekk ah, mu mel ne bisub waat la ci moom ne fas naa yéene won ginnaaw li taxoon may baalo àq tey ba ci xalaat ci kàddu ak ci jëf kenn ku ci nekk euh, dox jéego yoo xam ne euh, jàmm lay jur njariñ lay jur xéewal lay jur ngir euh, askanu Sénégal wi waaye ngir Sénégal gi nga xam ne danu ko fi fekk nu bàyyiloon nu ko fi waaye it mu mel ne nin ko waxee donnewuñ ko suñu ay maam dañ ko àbb suñu sët yu war a ñëw ñu war leen ko bàyyil ci anam boo xam ne lépp dafa war a jag ngir ñu mën ñu caa nawe kon euh, ak fu waay man di bokk fu nit man ci féete ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci jongante yi fu mu toll nay bàyyi xel ne Sénégal gi nu bokk kenn amul sañ-sañu xajamal ko kenn amul sañ-sañu gàkkal deram kenn amul sañ-sañu dox jéego yoo xam ne maanaam la muy jur day doon loo xam ne bu ëllëgee ñi fiy nekk tey ak ñee ñëw suba jéppi lan nuy def kon mu mel ne sunu kàddu gi dafa jëm ci rek ñaaxaat sunu bopp ñaax ñi ñu àndal waaye ñaaxit ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci euh, yeneen list yi te bokk ci jongante bi waaye ñaax ñi ñu bokkal Sénégal te budul ñoom euh, élection du am te ni kenn ku nekk ak foo manti toll la ngay xalaat la ngay wax ak la ngay jëf na méngoo ak luy saxal jàmm ndax nag euh, moo gën fii moo gën fa nu jëm jàmm ji yaatu Sénégal jëm kanam xew fee jàmm gën fii jàmm gën fanu jëm